di surtout nag di fàttali mbokk yu baax yi nga xam ni ñoo bokk liggéey bi ndax bu ñu sañoon mu gën a dox ku mel na Ndey Astu Siis ci France ak Mamadou Ndaw moom itam mu nekk Suisse ak itam Jàllo Allemagne tudde boppam jàll Cheikh Ahmed Tidiane Niang taalibe Cheikh Ahmed Tidiane Niang kon jàll yuy mbokk yooyu yëpp jël nañu nuyoo bu ñu war a nuyu ñu nekk bitim réew ñépp teg ko ci seen loxo ñu mottalil ñu ko bi fa tabarakallahu ñu ñëw ci li nga xam ni moom lañu fas yéene def mooy astaxfirullaha ndax yàlla moom moo ko tudd ci alquran insisté ci bu baax a baax a baax ni ku bëgg wërsëg ku bëgg teddaanga ku bëgg njaboot ku bëgg xéewalu àdduna ak xéewalu alaxira ku bëgg sa coono àdduna ak sa coono alaxira dàqu yàlla miy séddale moo ko wax moo tax muy tagg الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأزهار شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وقود العلم خائما بالقسط لا إله إلا هو عزيز الحكيم وخجري جوجو يلا وخكو kon astaxfirullaha jullit yépp bu ñu fekkonte ni seen bëgg yàlla bëgg nañ mu yokk teraangay àddina ak àllaaxira yàllaa koy joxe ab sëriñ mënul joxe benn teraanga yàlla rekk a koy joxe may wax nit ñi mooy nañu gën a delluwaat ci yàlla fa firroo ilallahi nañu ñun ñépp nañu daw jëm ci yàlla àddina bi bokkaale yi bare na te bokkaale yal nañ ci yàlla musal baaxul euh, kon nag suñu sëriñ si nga xam ni yàlla dogal na ñooy suñu njiit dañu ànd ak ñun ci jaamu yàlla te rafetal ko mais ki yore dogal bii di def di dindi kenn la mooy yàlla rek keneen amul mooy joxe xéewal ci àddina mooy joxe xéewal ci àllaaxira mooy joxe mucc fii ci àddina moom yàlla mooy joxe mucc ëllëg ci àllaaxira amul benn sëriñ bu am maqaama mën a joxe loolu yàlla rekk ko am kon nag nañu gëm yàlla bu baax gëm gu wér tàllal ko suñuy loxo surtout suñuy loxo xol toroxlu ci kanamam di ko ñaan mu am may ñu teraanga àddina may ñu teraanga àllaaxira moo tax istixfaar nañ ci gën di sax bu baax lu ko gën amul yàlla moo ko taggal boppam defe yàlla li wax ci astaxfirullaha waxu ko ci lenn kon ñu ngi leen di gën di soññi di leen gën di ñaax ñu sax ci istixfaar mooy bale sa kër ba mu set wécc def ko lu war a neexal xel lu war a neexal bakkan lu war a neexal dund lu war a mën a sawaral yaram lépp rek mën naa ni mbaaxaayu istixfaar kenn xamul nu mu toll ndax lu yàlla taggal boppam ñun dañ ci waroon di sax guddi ak bëccëg euh, toujours rek dinaa di gis ñuy joxe ay talsam talsam yi nag man weddi wu ko baax na nag ndax awma droit weddi talsam ndax koo xam ne sa xam-xam sorewul amuloo droit di weddi dara ndegam weddi sax warul kenn surtout nag koo xam ni feruloo ujji waxuma ne bu kenn def talsam mooy nañu ci teeylu ni yàlla wax ci alquran yonent bi daan ko ñaane bu ko bàyyi mukk bu kenn mën a orienté ba bàyyi li nga xam ni moom la yàlla di wax ci alquran ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam nit jaru ko ci àddina ku ko jar ci àddina amul lu ko jar ci àddina amul yàlla rek su ko defee ñu di astaghfirullaha astaghfirullaha astaghfirullaha yàlla dafa sant ñi nga xam ni ñi ngi jéggulu ci wàllu njël almustaghfirina bil ashaar ñi nga xam ni dañuy jéggulu yàlla ci wàllu njël kon loolu am na solo lool entre diggante 4 heures jëm 5 heures diggante boobu mooy njël di di ci def astaghfirullaha baax na lool yeneen heures yi tam baax na nag lool lool mais lii moom yàlla daf ko tudd insister ci almustaghfirina bil ashaar kooku yàlla moom daf ko tudd na ko ci euh, euh, sóoratu Zariyat tudd na ko itam ci sóoratu Ali Imran tuddaat na ko itam ci sóoratu Nooh yépp tudd na alquran boo ñëwee ba ci sóoratu Hóot yàlla tuddaat na fa istixfar di wane ni su ngeen bëggee kàttan ma di leen may kàttan di leen gën a may doole di leen gën a may wér di leen gën a may wërsëg kooku yàlla moo ko wax kon nag nañ ko def nag ci jublu ci jaamu yàlla faqat jublu ci jaamu yàlla ndax yàlla boo jógee ngir moom yàlla dana jóg ngir yow man kaana lillaahi kaana laahu lahu képp ku nekkal yàlla yàlla nekkal la ñun nag dañu daw di topp àddina te àddina bi liñ fiy dund barewul presque gaañ ñi kenn doo dégg kenn ko nangoo tudd dee te ñun ñëpp gëm nañ ni ñu dee te suñ duggee ci suñu biir bàmmeel yi lan lañ fay fekk kon mbokk yi nañu lu bàyyi xel yàlla nañu lu bàyyi xel yàlla suñu bàyyee xel yàlla te jaare ko ci astaghfirullah yàlla danañu defal teraanga àddina danañu defal ëllëg teraanga alaxira te loolu moo gën lépp dëkk ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee lii moom laa ñëwoon pour di ko wax pour nit ñi xam ne astaghfirullah lu ngeen ci mën di def doyul bu bu bu ko def nag def tey bu ëllëgee nga bàyyi wala kii dangay fas naa yéene yàlla fasante naa yow kóllëre astaghfirullah bi li feeg maa ngi man fasuma ko yene bàyyi so ci ñaané wërseuk yàlla dana la ko jox boko ko ci ñaanul yàlla dana ko dana la ko jox ndax mom mo ni ku ko def ma jox la kon bo ñaané mu ñëw bo ñaanul mu ñëw kon ñi daw di wuti alal ak di wuti wërseuk nañ sax ci astaghfirullah am yàlla ci aduna am yàlla ëlëk alakhirah loolu mo dàq lépp ndax wali man khafa maqam rabbih jannatan su ko defé kon e ñi ngi leen di ñaax mbokk yi nga xamni fas nañu yene def istighfar nañ ci sax bu baax guddi ak bëccëg buñ ci nopp lu benn yoon te yàlla tax walaay ko ci yàgg doo ko réccu lii moom dama koy indi di fàttali rek li tax ñuy def istixfaar bi ndax dama wax ni suñu planète terre bii ñu dëkk yàlla daf ko def mu maanaam wala boog doomu aadama yi ñoom ñoo ko xaaj cinq continent kontinant bu nekk xam nañu ñaara et ñaata état moo fa nekk état bu nek xam nañu ñaata peuple mo fa nek léegi nak ñu ne buñu sañoon cinq bolem lo xamni mi ngi nek ci suñu planète bi danañu xam ay istighfar yo xamni ni danañu def lu tollo istighfar yu toll non manam mo xam europe mo xam asie mo xam amerique mo xam afrique mo xam océanie mo xam yépp dëkk bu nekk ñu ne nangam lañ ci am ci ay population incha allah danañu def istixfaar yu toll noonu suñu ko defee ba mbooleem li nga xam ni planète bi pare na ñu ne ah ñun nag li ñu xamoon maanaam ci li ñu jot a xam ci ay dëkk te mu nekk ci suñu planète bi def nañu istixfaar yu toll noonu yàlla nag ni ko nag jox nañ la yaa ñu moom nag yaa ñu moom guddi yaa ñu ñoom moom moom bëccëg yaa ñu moom ñuy dund yaa ñu moom ñuy dee istighfar bi nga bëgg nag kañ nañ ko ci mbindeef yi nga xam ni moom nga teg ci kaw suuf ak sa kuratul ard maanaam sa planète terre bi nga xam ni yaa ñu fi indi ñu di fi dund fi la ñuy dee fi la ñuy dekkee kon nag def nañ istighfar yu toll noonu te duñ ko bàyyi mukk nag ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam su ko defee nag ku ci bëgg a bokk boo contacté sëriñ professeur Yatma mën na la orienté xam naka lañ ci bëgg bokk carte de membre itam sha allah ñi ngi fi mbolo itam buñu ñu sañoon danañu am mbolo mu bare bare nee nañu nekk mbolo mu dëggu ma ngi ñaan ma ngi ñaan nañu fexé ba jomba fenn waaw lepp lu nga xam ne mbirum fenn la ma ngi ñaan buñ ko def mukk mukk te di tay waaw mu wor ne man man fenn mom jombalé nako sama bop ndax njabootu yenenbi sallallahu alaihi wasallam la loolu maa ngi koy ñaan ñëpp yàlla nañ ko yàlla jàppale su ko defee ku bëgg a bokk nu ñuy fexe ba am carte membre yi yëpp incha allah suñu ko defee yàlla mën nañu dimbale ba li ñu bëgg yàlla danañ ci jàppale di ko jaamu ba keroog ba ñu fiy jógee bis bu ñu fi jógee istixfaar yooyu du niil mukk te itam ci àddina bii lay tàmbali ëllëg bu ñu demee alxuraan euh, fële wala ba tey dëkk yàlla dëkk ak alxuraan dëkk ak yàlla dëkk ak yonent bi dëkk ak dëkk ak alquran alladina yuhibuna alladina yuhibuna allaha wa yuhibuna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa yuhibuna awliyaa wa yuhibuna jamii al anbiyaa wal mursalin kon nga xam ne ñoom dañu bëgg yàlla bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu ngi leen di oo ku nekk jàpp ci ku mën a dugg ci mbooloo mi mu dugg ci te ñu ngi ñaan yàlla kenn ku ci nekk na jombale boppam fen lu dul dëgg nga ni jomb na boo demee bay bëgg a fen sax na nga bàyyiwaat sa xel eh, njabootu yonent la te njabootu yonent bi warul la fen loolu boobu rek laa laa ñaanagun ñu xeex ak moom ba bañ koy gañe lu naqari nag ndax am nañu ay ponk yoo xam ne benn bu ci nekk bu ñu xeexee ba gañe rek duggaat ci beneen su ko defee bi élément kese nag laa wax maanaam yow daal ak lu mën a xew ngir daal bu soobee yàlla bëgg naa du ma fen lépp loo xam ne du dëgg rek danaa taxaw ni loolu moom ala kulli xaal danaa xeex ak sama bakkan xeex ak ba kenn mënumaa fen loo du ma fen mukk te di ko tey kon ñu ngi leen di bàyyi loo xel loolu bu baax te itam nag eh, am nañu suñu tawfiix boo xam ne ñu ngi fay jaay ay garab garab yooyu nag ah ñu ngi ñaan yàlla ku ci jëlit yàlla nga wér yàlla yore wér nag ku ci jël yàlla na nga wér yàllaa yore wér eh, ma ñu ngi koy maanaam tawfiq Kër Massar boo demee mu nga ñu ngi ko jox suñu waaju baax alxaaji Mouhamadou Mbodj macha allah moom moo ko su ko defee numéro téléphone am di 77 775 19 22 77 775 19 22 moom moo yore suñu garab yooyu ñuy jaay ca géejawaay ñaan wax ñu nag ni ku ko def wér dañuy ñaan yàlla képp ku ci jël la tax nga di ko def ñaan nañu yàlla ci barke yonent bi barke alquran yàlla yàlla def nga wér moom moom wér asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa